asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa Sénégal ñi ngi leen di wax ni Ndayane Vision indi na leen lu bees tàq lu ñu tuddee daan doole daan doole nag mooy lépp loo nekk di ci yëngu rek bëgg ko lu ko fésalal na nga jokkoo ak waa ND Vision pare nañ pour ñu fekk si leen ci fa ngeen nekk siiwalal la ngeen nekk di ci yëngu kon gaaw leen gaaw yokk seen taux clientèle ak ndaayaan vision ànd ak équipe bu technique xale yu yaru ta dal te amit teggin ñu ñëw fësalal leen seenu njaay fësalal leen ca la nga xam ni loolu ngeen nekk képp waaye bëgg moo xam bàyyiwun cosmétique yi tailleur yi ñi nga xam ni ñooy jaay tissu yi ak lépp lu waay di yëngu di jaan doole rek Ndayane vision pare na pour ànd ak yow siiwalal la sam njaay waa soxna Nene ku bëgg a euh, jokkoo ak service commercial bu Ndayane Ndayane Vision ci ban numéro la mën a jaar pour jokkoo ci ak yéen. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal rawatina suñu mbokk waa diaspora yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak ci sa sant Ndayane Vision. ku ñu bëgg a jot na nga woote ci numéro bi 76 557 80 03 bu dee par Facebook tamit am nañ compte ND Vision la tudd pareil pour compte YouTube bi ND Vision la am nañ site officiel aussi. ku ci bëgg a dugg da ngay def www ndayan vision point com kon waa Sénégal ndayan vision mooy ñëw pour di fésal seeni publication merci beaucoup à la prochaine ci beneen émission Daan Doole